salaamaaleykum am internet Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaare di sant yàlla ci ni ngeen di toppee seen émission mag bi di Dakar Buzz social di nuyu ñi ne ci réew mi fii di ànd ak ñun ci émission bi di nuy itam ñi nga xam ne ñu ngi ci àll bi maanaam diaspora bi di ànd ak ci émission bi di nuyu fépp fu nekk rek moo xam ki ni yónnee dina ñaanal moo xam ki ni yónnee cent franc moo xam ba ki ni yónnee lopp loolu ñu ngi ñaan yàlla dolli seen i xéewal te yàlla jàppale leen. di gërëm tam ñi nga xam tam ñoo ni sànni ay ñaan ndax ñaan itam gis nañ ko macha allah ndax gis naa li ngeen may ñaanal yàlla nañ ko bokk gis naa tam ni ngeen ñi encouragé ci émission bi lu baax luñ ci am yàlla nañ ko bokk moo xam ki joxe ak ki amul yéena te amul lu mu joxe yàlla yàlla may leen xéewal te sutural leen nuyu groupe yi Dakar Buzz Social and taxaw ñu wérati sëñ Jili Ndiaye sëñ Mamor sëñ Xaadim saar soxna Sunga mu borom daaru bari nan macha allah di nuy suma rakk suma jarbaat Cheikh Cheikh Malick Cheikh Malick maa ngi lay nuyu bu baax di ñaan yàlla taxaw la te yàlla jàppale la Cheikh Malick ñaa yaa ngi Malaga mais yaa ngi bàyyi xel ñi néew doole di la nuyu di nuyu sa doom Yves di ñaan yàlla bàyyi la ak sa soxna Seynabou parce que social la ngeen di dund kon maa ngi nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi bàyyi xel Dakar Buzz social tey ñaan yàlla defal leen tawféex ak sutura di nuy ñëpp di ñaanal sama malade yàlla yëkkati seen bopp yàlla may leen wér ba nu mën a dellu ci seen sago ñëwaat nañ ci fii tey ci euh, Padois seet si suñu benn frère boo xam ne euh, dafa feebar affaire bi sonal na ko njëkkoon na def opération euh, mais après par la suite gis ngeen day ñëwaat son na nag jaaxle na amul doole te gor la nit ku baax la te bëgg na ko jàppale ndax toogul ku bari jom la ku yëngatu la ku bëgg lu baax mais boo feebaree te amoo doole day metti Ah, kon ñu ci tàllal loxo jaamu yàlla yi képp ku ci mën lu baax nga def ko ci mu mën a eggale traitement bi nga xam ne sonn na pour mu xëy sax am cent franc yu mu jëndee café c'est tout un problème pour mu war a dem rendez-vous tout un problème parce que tumeur la amee te mi ngi commencé di ñëwaat te xam naa ni suñ ko gàttanduwul ni mu meloon bu njëkk lay melaat ñu ko dimbali lu ci waay mën nga def ko ci mu mën a eggale traitement bi moo gën muy ñëw ñu ci tàllal loxo jaamu yàlla yëpp nag lu ci waay def yàlla moo la koy fay. moo waxtaan ak moom li ko dal kañ la ak nan la frère maa lay nuyu. salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. waaw maa ngi lay fay tur bi nan la. Euh, Pape Déthié Samb. Pape Déthié euh, li la dal lan la. Euh, benn tumeur la woteef moom ak indi loon mhm. waaye opéré nañ ko depuis 2019 mais def commencé wat ñu watti mhm. muy sàkku ñaan ci bépp talibé bu moo mën a dimbali te yàlla tax. màggee mhm. tàllal loxo autorité yeeg lépp. képp ku ma ci mën a dimbali rek Pape ci Samb mi ngi lay talal loxo nga ne bi mu lay dal nan la ñëwee. Euh, picc bu ndaw la woon. Euh, ci woteef la woon waaye muy màgg ndànk nak te xaw ma ko woon mag di mag jékki-jékki indil ma gàllankoor bu xaw a doy war boo xamante ni day jàpp suma loos beeg lépp. Euh, ñu gis ni defoon nga opération bi ban hôpital. waaw defoon naa opération bi hôpital Le Dantec docteur Anne Aurore. waaye ñu baax tamit euh, ñu yàlla baaxe jërëjëf. ah jafe-jafe lan la ndax gis nañ ni donte def nga opération bi tam dafa mel ni opération bi réussirul. waaw euh, defoon nañu opération bi mais dafa ñëwaat euh, commencé di jàpp sama loos bi bay dugg ci nopp bi dem naa ci hôpital yi mais dañ ma ne foog ma defaat beneen deuxième opération te comme loxo jotul ginnaaw moo waral mu toog fii di sàkku ndimbal ci képp ku ma mën a dimbali te yàlla tax jafe-jafe lan la gis nañ ni euh, lii am handicapé na ci lu bari mënatoo sax yëngu mënatoo liggéey te da ngay am problème sax pour dem hôpital aussi. waaw waaw euh, yu si bëri wax dëgg yàlla daal naa liggéey mais ak euh, gàllankoor yi suma loos bi mënatuma def dara wax dëgg yàlla maa ngi dem hôpital mais su ma naree dem sax pour paas daf may të hmm, moo tax ma waral lii lan ngay wax en tout cas bonne volonté yi pour ñu gën la bàyyi xel ndax gis nañ ne mun koo gàttandoowul mën na dem mel na mu meloon te loolu ñaan nañu ko yàlla aussi itam. maa ngi sàkku ñaan ci bonne yëpp képp ku dimbali te yàlla rek tax euh, maa ngi lay talal loxo jërëjëf. jërëjëf ngi sàkku ñaan ci ko ko mën a dimbali nañ ko bàyyi xel rek mm, mm, parce que lii euh, tumeur la te ku ne xam ne tumeur euh, dafay metti defoon na opération bi mais dafa ñëwaat ñëwaat na nag ci moment yoo xam ne nag fekk na ko mu sonn <coughs> pardon fekk na ko mu ne ci ay jafe-jafe ndax ku xëy lekk ak naan da lay të Sénégal kenn ku ne xam ne la fi nekk euh, boo feebaree boo amul ay moyens faju bi dafay xaw a metti parce que lépp xaalis koy def te su fekkee amoo yenn wér-gu-yaram pour mën a liggéey pour defal sa bopp day metti euh, souvent ma koy wax rek nanu gën a bàyyi xel ñu néew doole ndax ku sañoon doo laaj da ngay joxe. kon nit bu demee tam ba situation jàpp ko ba muy laaj nan ko jàppale te yàlla tax nan ci def seen alal jeune la tolloogul fenn euh, encore une fois dañ ko dimbali te ku ko dimbali yàlla moo lay fay wax na ko léegi pour mu xëy dem hôpital sax sa tout un problème nit ñaa ngi doon jàpp nag mais euh, ñëwaat na te ñëwaat na te xam naa ni man gis naa avant bi ak après bi su fekkee jógunu ci tam nam meloon lay melaat ñaanuñu ko yàlla kon lu ci waay mën ci lu baax def ko ci te xam ne lu ci waay def yàlla moo la koy fay eh, léegi dana la xew fii ngay defee deuxième opération wala da ngay génn. déedéet fii laa koy defee hôpital euh, Le Dantec. Hmm. mais defoon nga ko euh, réussirul est-ce que defaat ko foofu tam aussi itam dooy risque aussi itam. a ah, yàlla rek moo xam. Hmm. yàlla rek moo xam. Hmm. Eh, nañuy sàkku ñaan rek. Eh, képp kuñ ci mën a jàppale tamit daal ñi ci tàllal loxo bu nekkee Europe alhamdulilah bu nekkee fii tamit sant yàlla rek. mais bi nga demaatee hôpital wax leen def naa opération bi mu ñëwaat tam ñoom bi la ci biir traitement yi lan la waxaat. waaw dañ ma ne foog ñu defaat une deuxième opération mën na am yàlla def ci tawféex. yàlla na ci yàlla def tawféex te yàlla may la ci ndam may ko ci médecin yi may ko ci képp koo xam ne yaa ngi suivre Dakar Buzz Social. ndax euh, jafe-jafe ak àdduna ñu ànd. te nit buy wér day wérati. nit buy am day ñàkk. Mhm. Euh, te euh, bu la dalee nga gëm ko nag loolu mooy mooy mooy mooy. loolu mooy jàmbaar eh, te gis nañ ni eh, jàmbaar nga yaa koy gere eh, yaa ngi ànd ak moom te sant yàlla ndax lu muy metti métti am na ko xam ne yaa tane man mii ne ci biir malaadi xam naa ko am na ci cas boo xam tey su ma ko wanee woon tey danga naan man da naan da nga yow feebaroo te effectivement feebar nga mais am na ci yoo xam ne da nga naan est kii nit ñi mi ngi dund ak moom kon sant yàlla ci bi nga ko gérer ñu gën a wax ni ñu jàppale la. nga mën a def deuxième opération bi mën a doxi say soxla. bilan bi ñaata la woon. bi passé trois quatre cent cinquante mille la woon waaw bii nañu ne waxuñu ma dara wax dëgg yàlla. déedéet waxaguñu ma dara. jërëjëf mbokk yi Seydou bii passé trois cent cinquante mille la woon. bii waxaguñ ko dara eh, nañ ko bàyyi xel rek eh, te li xam ne lu ci waay def yàlla moo la koy fay. Eh, nan ko jàppale mu mën a eggal traitement bi parce que jàmbaar la li tax may ci jàmbaar la mooy borom jom la. Euh, nit ku bëgg lu baax la te malgré am na lu ko dal mais taxu koo yàcc na yàcc non non gërëm tam ñi nga xam tam ñu ngi ko ci doon jàppale ku ci mel ni Julo euh, maa ngi ko ci gërëm bu baax sonn na ci parce que bi may woo xat naa maa ngi ci ay cas yoo xam ne tam mënu ma ko jéggi mais ñeewantu la moo tax ma sacrifié wu pour pour mën koo jël mais jël naa ko ci moment yu difficile yoo xam ne aw ma sax temps te suñ suñu liggéey dañuy xool ki gën a urgent yu jëli ko moo tax après euh, ñu ñaan yàlla may ko ci ndam moom Zilo yàlla may ci ndam tam Ndeye Fatou sonn na ci aussi moom tam te wax dëgg yàlla daj na ci lu ne mu ngi yëngu ci parti sociale euh, xam nañ ko te nit ku baax la aussi itam li ñu jot a xam ci moom te bu sañoon tey nga wér wér nag suñu borom moo koy joxe yàlla na la ko yàlla defal defal ko mboolem jullit ak ku dul sax ndax kenn attanul tawat di sant yàlla ci plateforme boobu di 78 601 11 11 ñu gis ni ngeen koy bàyyee xel din fa yónnee seeni xéewal ñu koy joxaat jaamu yàlla yi soxna Umu jàll ñu ngi lay sant di la gërëm di ñaan yàlla jàppale la taxawu la di gërëm képp ku ñuy bàyyi xel rek madame Coulibaly maa ngi la ciy sant di la gërëm yow tam ndax ay nit lañ ñoo xam tam ñu ngi bàyyi xel social bi ba ci xaadim Amar ak Mouhamed Fadel nu ñuy def ba ñi feebar faju nu ñuy def ba ñu xiif lekk loolu mooy si nit yi kon yàlla yàlla dooleel leen comme nag euh, euh, nu ñu koy defee rek ku nu seeti mu néew mu bari dana lu nu dugal tey ñaan mu barkeel Dakar ba social dina ko jàppale cinquante mille bu fekkee ordinance mu jënd ko su dee analise bu mu war a def mu def ko ci ñu xaar la tànk vidéo bi dugg bonne volonté mën cee jàpp kon ma jox ko cinquante mille yi. di gërëm euh, soxna Adja Fall. Mhm. Adja Marème Fall. Mhm. Euh, waa kër euh, Fallen bi yëpp. di gërëm Chilo wax dëgg yàlla jàpp na ci bu baax a baax. képp ku doomu aadama nañu jàppale néew di doole yi tamit baax na ci lool ndax ndaxte yàlla day tegi nattu te daf la koy teg ne xaar ma xool doomu adama nu muy def. boo muñee rek mu tegal la waaye boo foogee moo la ko teg mu teg la lu gën a métti lool te doo ci mën dara waaye jërëjëf jërëjëf. kon ma jox ko cinquante mille li nga xam ne moom la ko Dakar ba di jox fu mu dem la fay joxe ndax booy def lu baax yaa cee jiitu bëggunu seeti malaat waxtaan ak moom bàyyi ko mu néew mu bari dinañ ci tàbbal ñàqu Dakar Buzz di ci gën a ñaanal bonne volonté yi nga xam ne ñooñu ci appuyé di dooleel ban mën di ko jox malaat yi kon ma jox ko cinquante mille bu dee ordonnance bi nga fi mu jënd ko. bu fekkee analise bu mu a def mu def ko ci aussi itam ma jox ko cinquante mille Seydou Dakar ba jàppale cinquante mille mu barkeel euh, tey. yàlla lu ko fi fekk tamit yàlla na yàlla wóor ci barke Salatul Fatiha. yal na leen yàlla aar yal na leen yàlla yiir yàlla sàmm ci barke salatul fatih jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf waa Dakar Buzz lan nga wax bonne volonté encore une fois ñu gën laa mën a jàppale ndax gis nañ ni euh, cinquante mille du moo lay faj mais buñ la ci doolelee rek yàlla mën naa def mu barkeel ba euh, leneen fekk ko fi ba nga mën a def say traitement ci anam yu baax looy wax bonne volonté yi waa di talal loxo yëpp waa da bonne volonté yëpp képp ku mën a dimbali Pape Déthié Samb Pape Déthié Samb mi ngi lay talal loxo euh, numéro am mi ngi si 77 207 62 30 jërë ngeen jëf. jërëjëf bokk internet yu Dakar Buzz lii mooy liñ fi jël si woon tey fii ci Pape Déthié Samb di am tumeur di nekk ak moom di ndaw di góorgóorlu di ànd ak moom nag. di gërëm encore une fois Julo di ñaan yàlla gën koo may ndam ci sa feebar bi di gërëm nday Faatu Ndey Faatu tam yaa ngi yëngu ci aspect sociale yàlla na la ci yàlla may ndam. di la jaale sa wejur yi nga ñàkk bu yàggul yàlla na xippee àjjana social nag boo ci nekkee yàlla mooy fay yàlla moom ku ko lebal mu fay la te amul jaamu yàlla bu gën a gaaw sa mbokku jullit taxaw sonn nekk jafe-jafe nga taxaw ko kon def social def sa bopp la yàlla yàlla taxaw la te dëgëral la di nuyu encore une fois suma jarbaat Cheikh Malick Niang nekk Malaga di nit ku baax ku social koo xam ne tam saa su ne mi ngi xool li jàllale li eh, fi jële ñàkk mi ngi ci Cheikh Malick kon maa ngi lay nuyu sa doom Yves di ñaan yàlla taxaw la te yàlla jàppale la ci micro bi mi ngeen tàmm gis la cadre bi Seydou laa ci àndal ku ko bëgg jàppale tam numéro mi ngi ci baaru écran bi soo fa wootee loo ko yéenee nga jox ko yow ak moom ak yàlla yàlla na ci yàlla def tawféex ba ma jël siwaat ko mu wér ndax buñ la jëlee nga feebar boo wéree dañ lay jël siwaat kon bii yàlla na bokk ci ma ko jël siwaatee ñu mën a ànd ci beneen anam boo xam ne du bokk ak bii yàlla yàlla def jàmm jërë ngeen jëf Dakar Buzz Social Cheikh Malick yàlla yàlla taxaw la te yokku la ci barke yonent bi jërëjëf